الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi ñëwaat ci suñ bindi koor bindu tay bi nag ñu jagleel ko li itikaaf ndax bind yi ñu génnoon ñu ngi doon wax ci ngeneel ngeneelul fukk yu mujj yi ak la ca la ca aju lu demee ni ki laylatul qadr ak i ngeneelam bindu tey bi nag dañ koy jagleelaat geneen jaamu goo xam ne euh, sunna su am solo la euh, muy laatikaaf waaye nag day gën a feddliku ci biir koor gi ci fukki fan yu mujj yi day gën a feddliku ndax yonent bi sallallahu alayhi ci fukki fan yu mujj yi la ko daan def la ko daan ëpp lu mu koy def ndax jële nañ ci suñu yaay Aïcha mu wax ne yonent bi saa sallam fukk yu mujj yi da ko daan li'tikaaf euh, da ko daan li'tikaaf noonu la noonu la daan def ba wàcc ba ni ko boroom wooye boroomam wooye bi mu fi jógee tamit waa këram sax di continuer di kaaf ginnaawam euh, bu ngeen seetloo bëri na lu ñuy tegtaloo ci suñ yaay Aïcha rawatina bu dee jëf joo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo jëf muy jëf biir kër loolu nag la ko waral mooy lim nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim nekkoon ak moom ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wàcc eh, ab liggéey sax ci néeg suñ yaay Aïcha la wàcce kon loolu rek moo waral ñuy jële ci moom lu bari ndax bu dee jëfi biir kër ga lu ci lam ca solo moom suñu yaay Aïcha dafa takku lool lam nettalee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jëfi biir kër lu takku la kon nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam fukk yu mujj yëpp da ko daan le'atikaaf bu ñu waxee kaaf nag mooy jullit bi dagg mbiri soxla yi àdduna yëpp daal di jublu boroomam nekk ci biir jàkka di fa zikkar di fa def ay lawraatam di jàng alquran wax nañ ne su dee fukk yu mujj yi moom day gën a feddliku sunna su su suy gën a feddliku ndax ndax ndax li li sayd sayd saydatuna Aïcha wax ne yonent bi fukk yépp la daan la daan màng di ko li'tikaaf ci jàkka ja nga xam ne fu eh, ngoonu ñaar fukki fan ci koor gi fu timis jote rek mu fatu bu fatoo maanaam fukki fan yu mujj yépp da koy fattu balaa génnaat rek ñu ne weeru wi feeñ na weeru weer weer wi feeñ na ah li itikaaf nag muy lu am solo nekk loo xam ne sariyaaloon nañ ko ci xeet yu ñu jiitu woon ndax buñ demee ci suratul baqara buñ demee ci suratul baqara laaya téeméeri ñaar fukk ak juróom danañ fa fekk buur bi tabaaraka wa taala muy wax ne وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود كون شريعة الله جو خمني نيو جيتون خير يون جيتون دان نجل اعتكاف ده آية بي موك تكتلي كون مي لو أمسول موم الاعتكاف أه بونك ينك dafa am ay ponk lay tax li atikaf ga meuna bax baax ñetti mbir yi daje ca moy yene ndax waxon nañ len ci bind yi passé won ne yene mom jëf ju man di doon ci l'islam yene ju sall koy lal ndax yene bi sallallahu alayhi wasallam mo ne innamal a'malu binniyaati jëf yépp yene ju sall koy jagal kon bala li atikaf ge meuna bax baax yene ji sall naka noonu tamit ki nga xam ne moo am yéenay li atikaaf mu nekk koo xam ne day set ci xeeti janaba janaabaak ak yooyu noonu naka noonu tamit bu dee jigéena mu set du amee xeeti darab yi ñu doon leeral kon loola mooy ponkum ñaareel ba ponkum ñetteel ba mooy mu defe ko ci jàkka donte foofu léegi fan yi rawatina jamon guddi yi ñu toll coow yu bari na ci lool ñu naan ndax nit mën naa lee atikaafe ci ci ci ci fudul jàkka ndax nit mën naa lee atikaafe ci këram eh, wala déet ndax guddi yi ñu toll am na jàkk yoo xam ne tëj nañ ko ndax nit ki eh, diineem dana ko may mu lee atikaafe ci këram li gën a wér mooy lee moom ci jàkka ci jàkka lay ame ci jàkka lay mën a wére kon ponkum ñetteel bi foog mu nekk ci jàkka donte coow yi bari na fan yi waaye li ëpp ci borom xam-xam yi li gën a wér nga xam ne borom xam-xam yi amuñ ci amuñ ci góote moom nit ki defe ko ci jàkkaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom lañ ci roy mosu koo defee fu dul jàkk kenn mënta indi benn xadis boo xam ne bu wér la ne yonent bi sallallahu defe na ko ci këram ca jàkka ja la ko doon defee waaw maanaam yi ci rot yépp euh, li borom xam-xam yi tegtaloo liñ gis ci ay ahadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mosu koo defee ci kër. ci jàkka la ko defe kon ñiy wax ne ndax ndax nit ki mën na koo defee ci këram la gën a wér te nga xam ne boroom xam-xam yëpp moom lañ dëppoo nit ki defee ko ci jàkk na yéene ji sell nit ki bañ a am janaba ba pare mu defee ko ci jàkk kon yooyu mooy mooy mooy tax li itikaaf yu baax bu dee nag diir diir bi maanaam ndax wutal nañ ko ab ab dayo ne ndax nit ki day itikaaf benn fan ñaari fan ñett bu dee li ëpp moom boroom xam-xam yi ne wutaluñ ko ab dayo maanaam nit ki su ko neexoon mën naa tëju ci jàkka weer wala lu ko ëpp waaye nag euh, ba balay balay man loolu day fexe ba bu fekkee dafa am ñu aju ci ginnaawam ay waa këram lam warloog ñoom lépp mu jox leen ko doog a dem dugg ca jàkka ja waaye bu fekkee nit jullit la boo xam ne eh, la war ci taxawaay bi ko war ci waa këram ci seenu dund rek yooyu yëpp matalewu ko ba pare na day dem li atikaafi loolu boroom xam-xam yi dañ naan ko déedéet am kay day li li war ci waa këram ak ñi nga xam ne ab dundam ñoom la war day fexe ba régler leen leen seenu dund bu doy sëkk su demee tëju nag juróom benn fukki fan wala lum tëju kooka moom lum li kaaf rek loola lislaam da koy nangul waaye su amul woon ab dépasse ne day dem tëju ji lu mat juróomi fan wala fukki fan da koy leetikaafi kooku lislaam euh, du nangu loolu ndax day day am yu gën yu gën a farata daa am yu gën a farata yu nekk ci ginnaawam muy wuti ji lum dundale njabootam googu euh, bu dee imaam Malik nag moom nee nit ki bu ko defee nit ki mën na am leetikaaf mën na am yoolub leetikaaf ci benn fan benn fan aku guddeem rek loolu Malick moom loolu la wax am ñu ne déedéet bu defoon ay waxtu sax mën na caa am li atikaaf waaye li gën a wér moom nga xam ne moom la Malick wax ak Shaafi yi nee nañ moom foog mu matub bis nit ki tëju ci jàkka eh, dagg relation am ci àdduna lépp loo lu aju ci xeeti maanaam loo xam ne àddunaa lu àddunaa lépp mu teg ko teg ko fële jublu ci boroomam tëju ci jàkka yor kurusam wala muy jàng alquraanam lu mat ab bis imaam Malik moom nee na foog mu matub bis foog mu matub bis eh, ak guddeem maanaam vint quatre heures foog mu mat ko waaye bu dee yeneen yeneen ngir yi am na nañu ci gis ne bu doon ay waxtu sax baax na waaw kon li ñuy jël foofu mooy waxi imaam Malik ki ne day kaaf bu yéenee yéene ju sell laab dugg eh, te mu defe ko ci jàkka su fa defee vingt quatre heures sax loola danañ ko tuddee li'tikaaf waaye bu yéesee vingt quatre heures moom bu dee Maalik du ko tuddee li'tikaaf waaw leneen la koy tuddee waaye du ko tuddee li'tikaaf euh, yi koy yàq nag yi yàq li'tikaaf lan moo koy yàq bokk na ci génn génn bu bari génn boo xam ne amoo ci aajo waaye bu fekkoon tey dafa génn ngir yeesal njàppam kooku l'itikaaf bi du yàqu nga xam ne dafa jékki-jékki rek jug génn ci biir jàkka ji eh, daa di dem yeesal njàppam ñëwaat wala mu génn doon faj aajoom eh, faj aajo faj aajoom yeesalaat njàppam ñëwaat ci jàkka ji du duggaat eh, kooku yàqul l'itikaaf bi li ñu bañ daal mooy génn boo xam ne amoo ci aajo dangaa génn ngir dañ kumpa xool li ci mbedd mi walla bu boobaa moom loola duñ ko loola day yàq l'itikaaf bi bañ nañ ko ba kii li kaaf du seeti ku feebar te seeti ku feebar sun na la bañ nañ ko ba kii li kaaf du gunge am néew ku wàññiku te loola na la euh, kon lii moo aji woon ci euh, li altikaaf bu dee jàkka yu bari nag wutal nañ ko ab place boo xam ne fa ko nit kiy defee kon ñu jàpp ne sun na su am solo la euh, sunna soo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ko def te musu musu koo bàyyi da li muy dund diirub li muy dund lépp da ko saxaloon di ko def ci fukki fan yu mujj yi ba ni mu yéegee ca boroomam moom sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi fi la ñu yamandi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi